mu am solo loolu ñu dugg ci bëre door bi keroog dañu la gis arène nationale soq di bëre franc nga samp sa ndënd ci diggante ñaari mbëri dañ la ko xelal wala yow yaa ko bëgg parce que gis nañ combat yu bari Serigne Ndiaye day ñëw samp ndënd gis nañ bi euh, xale bi dëkk Tëngéej doomu dàngu di bëre ak Jordan nga ñëw sampaat ndënd même chose lan na da ngaa xamul foo jëm wala da nga bëgg a ci ci génération bi. ñu jëm ñu jëm. sportif lañ làmb la ñuy def te fekk ne làmb ji mooy tàggatee ma jafe-jafe soo doo comprendre parce que da ngay bëri daan am problème adversaire ñi war a bëri duñu bëri ak yow comprendre ñi war a bëri ñu ngi yor loo xamante ni ñoom duñ fa yegg mais keroog tey soo ko Franc tey ci àdduna yéen nañ ku ne ci àdduna ay naataango lañ ay morom lañ ñëw fees ak stade bi stade bi fees dell macha lamb ji neex animé xam nga yàlla may Franc ndam lu rëy loolu mooy làmb mais jël ñaari ponkal fay la ko ne cent millions quatre millions ñun booy nekk fi di reyante suñuy biir su ko dee ba si ay ay quatre millions ay cinq millions ay huit millions dix millions te bu ñëwee état xam nga tamit neexu ci xol quoi làmb ji fa ñu fa xam nga maanaam ñii mu ñu fi nekk ay plus de huit ans ñu ngi ko si ñëw bëri seen biir ñun fa lañ jëm. mais liggéey googu lu tax nga yegg ci ñoom. non du xam nga liggéey googu mooy leen euh, làmb. dépassé na ay affaire liggéey ak ñàkk liggéey tey xool li naataangoo maam liy yoon nga tëgg kaw ñoom ba ci toll seen ay grand frère dañu mayoon loxo ñu yéeg. dama bëgg ku la may loxo. non mais lu yow bëgg ku la may loxo man kan laay bëree fu nekk nii. kan nga a bëree man sax man sax ma kan laay bëree parce que ku ne Serigne Ndiaye dégg mu avance. kan nag ngay def kan ngay kenn mënul delloo sa avance fii boo nee Serigne Ndiaye dégg mu delloo avance xëy na soit adversaire la ñu la tegal ku gën Serigne Ndiaye nga jël Serigne Ndiaye. mais comme kan ak kan léegi waxuma adversaire la yow doomu dàngu. doomu dàngu lu ma 21 combat la am 21 combat man dina xam di di di di taxawal ci làmb ji 21 combat moom di 21 la. dégg lu ma nee man su daanu woon par contre da doon man. su daanu woon su daanu par contre. ni man damay taxaw di ko xaar muy daan bu bëre ak man. kon nga jël Jordan mi mu daan. non déggoo mu xanaa. bëgg nga dama toll ci moment bëre dégg nga de. dama toll ci moment bëri man damay bëri Franc ba kii di mondial la bëri soq. Hmm. seen bu sopp mu ñëw compétir. Hmm. dañoo toll ci moment bëri dañoo toll ci yokk suñu xam-xam. su bët da nga ko teg ci Franc. non non pour la. non non pourquoi non non ci yoonam yàlla nga dafa jàmm ci yoonam maa sama yoon. soq nag nit soq xanaa amul ay mbokk tamit nag yow yërëmoo soq ba kii di mondial nu ma koy yërëm. Ah. soq di ndaanaan doon doomu Pikine. soq ndaanaan am erreur ci combat bi. waaw ah, waaye nag wala mën a rectifier erreur am ci champion. fa na ko rectifier ci yow. yàlla tere. Serigne Ndiaye man ma lamb de dama ma sëkk lu lamb laaj koy def. soq fooyoo lamb de. ah non xaw ma de man la Serigne Ndiaye la man sama bopp laa xam. soq fawewu lamb dama la man Serigne Ndiaye dañu ko boot ñëpp ànd ak moom mu am erreur bu rëy bu mu def mm. bëgg a rectifier waat erreur am ci beneen sax loolu mukk si àdduna incha allahu rabi. Hmm. Hmm. foofu mu làmb de. ñu Zarko. Zarko non non Zarko. musu promoteur mu sax wax dëgg yàlla. ko Zarko mu enchanté wu ma ko. Zarko mu jël gars rek di simb rek. yan gars yi. ñoom bàyyi ma ñoo nii ñoom bu métti laa du génn si lii nga jàpp daan taxañ taxawee combat soog moom weesuwul ñooñu nga xam ne tudd naa leen làmb mun laa booleeg ñoom nga war a mën a bëre ñoom. waaw yow combat soog xam nga ko combat soog kay mooy Serigne Ndiakar du génn si lii loolu laa bëgg dégg. Tyson 2. merci Ibrahima. dégg dégg lu ma xanaa ku ci nangu tey tey tey suba ma jël sa avance tey tey tey suba. Tyson 2 ba Franc mën na leen a boole. ba ba yokkal la xaalis sax. Tyson 2 dégg ma xanaa ku jël sama avance tey mooy sama xaalis yokkal la. si njëkk ak teraanga ne la génn ndox bu sedd guy nga naan. waxuma ba tey tuddoo Tyson 2 te man maa ngi wax Tyson 2 Tyson 2 laa wax. Serigne Ndiaye bëgg na bëre Tyson 2 bu ñu leen boole. dama sànq ne dama toll ci moment bëre wala déggoo ma dama toll ci moment bëre muy Tyson 2 muy Jordan muy doomu Dangu muy Balla Gaye di Modou Lo ku mu doon ci àdduna rek ku ñëw taxaw sama kanam damay bëre soxla ma soxla ma ci un franc mali. moo xaritu mbër ko ku ñu lay jox ko bëri. non xam wala nañ ko muy guy yi bu weesoo guy gi moom wax yàlla ku ñëw Hmm. ama sama écrit mel ni guy gi mais parce que sama nit la dañoo sekk loo di ma jaaral yoon jaaral fii jaaral fii say kooku ay million tax mooy si ma naan maa da ngay am xaalis mu am xaalis ngeen bokkee tàkkusaan ngeen dóorante. xaalis boo koy lekk da nga koy lekk ak ak ak ak ak firi mais lekk xaalis ak kersa musiba la yàlla ci musal xaalis bu ko lekk man bëgg xaalis xaalis dama koy lekk ak yaa a xam jantal firi mais lekk xaalis ak kersa doxul saa yi. yi actuellement kan mooy démarrer combat Serigne Ndiaye. non loolu moom Peta Faye moo koy gérer man samay entraînement laa nekk yëpp man samay entraînement laa nekk lekk tëdd nalaw promoteur Peta Faye la ñuy waxal man wax ak man. Hmm. moom mooy woo ne ma fii si combat taxaw na yow diwla man alhamdulilah. daal ñëw jël avance xool sama xol sedd ma sama dox. moom Serigne Ndiaye am na xaalis macha allah drapeau chef de l'état ya jël lour jël léger ja yaa jël open jël jël équipe jël jël individuel. macha allah. drapeau barki démb cinq millions. yi teg Iba Mar jox ko sans. Euh, mooy catu ba allah. ama xob macha allah xob allah yaa ngi jël. compétition bi actuellement kon Serigne Ndiaye am na xaalis. non amu ñu nag ñu ngi sant nag wax moo dëgg amum. parce que man yaay gërëm la xëy bàyyi njaaxoot man njaaxoot di seer loolu. non dañuy sant deux nag. xam nga dañuy sant yàlla mooy lan tey suñu moom boo defee benn affaire da sant gërëm ko xam nga sant gërëm mooy suñu moom nga yëngu si benn affaire su moom di la suturaal du métti métti di la suturaal da ngay sant gërëm ko ma ne may sant yàlla bu baax. ma ne ba xam Serigne Ndiaye am na deux cent la. waaw mu ñëw war xaw ma nag yi doon toll. ma ne may sant yàlla bu baax. gétt ay gétt la. Ah, waaw ay sant yàlla daal. may sant yàlla bu baax. Ndiaye denc na deux cent millions. waaye. tournoi yi nga commencé jël ak bi nga dalee bëri ba léegi li nga denc war naa mën. ñooñu dañoo toll si investir suñu bopp ñu soxla ñu xaalis dañoo toll si investir suñu bopp. li ñuy àndal kenn bañ a kenn bañ a kenn bañ a mer. xam nga lamb dafa métti. Hmm. ay gis boo jiyee lamb ba taxaw ci buntu bi rek mbëri paas paas paas doo comprendre. Hmm. xam nga dafa métti quoi am sa paas bu ñibbee yàlla la nga jël lamb ji. donc hmm. nga gëstu leen. dafa métti quoi vraiment. te si investi sa bopp. xam nga donc tey te ngay sant yàlla parce que suñu borom may na la kattan macha allah may na la xam-xam. boo mun jëlee benn affaire. maanaam loolu sant yàlla la mais du koom-koom du dara mais ñu sant yàlla bu baax a baax. ñuy sant yàlla bu baax dañuy gërëm suñu entraîneur dañuy entraîné nag suñu entraîneur dañuy entraîné ñu ngi sant bu baax di leen gërëm. xanaa doo ci boole waat tey di leen gërëm. non mais parce que sa ci mikaay nga gërëm maam liggéey tey fu nekk tey sa patron bi bureau mu tey doo liggéey de. Hmm, chaque jour laa koy gërëm ah mais sama gërëm sa sax fii chaque weer nga tàllal loxo fii fayeku. tàllal <laughs> <laughs> li nag nga fayeeku nag foog nga gërëm leen n'est-ce pas waaw ah, man samay coach amu seen fay hmm. sama papa Amadou Diop waaw lafal jàmm hmm. Kante Bojang Wakam hmm. yàlla lafal jàmm Maxi Bodi yàlla lafal jàmm sama papa Abass Ndoye sama papa Tafa Gueye amu seen fay ñooñu ñëpp sax xam nañ ni yàgg nañoo nekk ak Serigne Ndiaye mais Père Kati bi mu ñëwee ci Serigne Ndiaye léegi la la yokk allahu akbar loolu mun na koo sax. dafa mhm. bëri trop. yokku na ba nga xam ne yokku na. non bu baax dégg man yokku lu bari bari bari bari bari béykat yi il a formé des rois des arènes. Mhm. donc bu nekkee si ne dafa war a yokku du man kese mais écurie Fass la yokku. Mhm. écurie Fass la yokku boo xoolee écurie Fass dina bëri ay combat ak ren combat yi am ak ndam yi am macha allah mu la ren tey paa bi mu ngi liggéey te boolewul dara ak wax te loolu yombul quoi. nga nekk mag nekk kilifa toog. mag bu yaru macha allah. Hmm. defee sa liggéey. respecté hmm. ñëpp. Hmm. yow da ñëw entraînement sax quatre lay toog entre quatre lay ñëw entraînement moo fay mujj. loolu sant yàlla ko vraiment. kon mu ngi yaa ngi xalaat teg sa bët roi des arènes bi mu formé woon Yaxya Diop Yékini mu teg la foofu. dégg nga man man sama objectif bu si laam mooy être le meilleur des meilleurs. être mu ça veut tout dire. waaw être le meilleur des meilleurs. wax dëgg yàlla. te ñu si bi ñu ngi koy liggéey ak suñu ay kilifa. ak sumay mbokk. lan moo la ko mën rek affaire moom nga def ko lu mu bañ nga moytu ko yombul. mbërum lamb doo bokk ni ñuy vie mbërum lamb doo bokk ni ñuy jëmukaay ak dara lamb dafa métti quoi. yow bu ñuy di aw gauche yow droite ngay aw bu ñuy dem xew doo mu dem xew yaa ngi yaa ngi yaa ngi parce que lamb maam sama maam daloo naan denc gu sori mu ngi jiñaate da nga comprendre da ngay gis mbër yu daan naan diw moomu jaay diw moomu jaay te pourtant diw moomu jaay boobu pourtant am am na noonu liggéeyam mbër yi am git. boo moon git tey toog sur def si ñàmbur lu bëri doo fekk mbër ci guddeem. say rakk ngay conseil nii. non pas say rakk sax mais ñoom ay mbër lañ. si ba tey ba tey rek ba tey rek. yax yi jóob nii. Hmm. macha allah di ko ñaanal jàmm bu baax. Hmm. Hmm. maa jaajëfal bu baax kontaan naa ci teew bi ma ñëw ci sa kër. fekk la fi nga nga def ak man émission. waaw ah, yow yow borom baax yow moom macha allah quoi nga war di roy que moom sa liggéey boo ko tegee si yoon tey lu ne mun nga xam. Hmm. waaw te milieu am dafa dafa sensible dafa garaaw. te ñun suñu liggéey bi ñuy def dañuy compétir samedi dimanche lundi di compétir di compétir di compétir donc boo ki nekkee rek da ngay boore da ngay boore da ngay boore humblement yem. nga yor benn couleur. te loolu gis nga si yow yàlla yàlla defal jàmm xam nga yàlla mosal si seytaane di nuyuwaat nag waa Medina gi yëpp Medina gi mu juddoo Yorof maa ngi maa ngi nuyu bu baax di leen siyaar waa golf yi xam nga waa waa Njaafati sama dëkk yi wa seen fay waa Gàmbi yi sum papa Aziz yàlla yàlla defal jàmm Seexu Sumbulu waa Kolda yi waa Casamance maa yi maa ngi sant bu baax di leen gërëm ndax gis naa seen taxawaay gis naa xam nga. waa Lambaay wax nga dëgg sama mbokk yi waa Lambaay waaw waa mbootal waaye seen ñëpp waa jarga waaye seen ñëpp di leen gërëm lam dafa metti tey say say mbokk bu la bëggee dina jàppale lii nga leen mënal moo di leen sant di leen gërëm parce que say boo dëkk bokkee ay famille di nuyu dama sama wax papa nag muy El Hadj Bara Diop maa ngi koy ñaanal jàmm baax a baax a baax di ko siyaar ba di ko ñaanal mu yàgg fi lool sama maam sama famille yëpp maa ngi sant ba dama gëm sama famille sama rakk yi sama mag yi maa ngi sant bu baax a baax di leen gëm di leen ñaanal jàmm ak salaam cat xam nga. di la di bëggee suma gars yi ma àndal yëpp encore une fois. Zal Bada Ousseynou Mo Lamine Obala xam nga maam Samba. exactement soppay galas ma ngi sant ñëpp di gërëm ñu daal di la bëggee bu baax a baax daal. Kabandos ki Baye Abdou nag maa nuyu bu baax. di ko ñaan mu yàgg fi loolu daan wér suma yaay gërëm jëng mooy sant bu baax a mm-hmm. maa ngi koy jaajëfal bu baax mbokk yi Serigne Ndiaye 2 bu ngeen ñëwee Ricis Medina yow na fa ay xar yu bari di jox benn nit par benn nit ñëw leen ngeen jël si seeni xar plus de cent cinquante xar mu ngi koy yeew di ko joxe mbokk yi di leen jaajëfal bu baax. la la a ñëw rek. dama amiin ma allahumma amiin loolu la ngeen yàlla. Ah. li mooy. fii gétt teg daw. non non du ma daw man bàyyi yow dem nga ci yeew benn yóbbu. jo joxal ma eh, naa benn. Ah. ak tanta <laughs> mbokk yi ba leen di jaajëfal di leen jox dig daje ba ëllëg incha allah ci beneen xew-xewu làmb bu jërë ngeen jëf.